fonk barab bi ak wormaal ko moo tax mboolem taalibe yi ku ci dugg ci jumaay Tuubaa ju mag ji doo sol ay dàll tànku neen ngay def wala nga sol ay kawas yenn waxtu yi nag naaj wi day tàng lool ba tax na karo yi boo ciy dox tàngoor wu jéggi dayo moom moo ciy bàyyeekoo ba ñu fiy dugg dañu koy yëg bu baax a baax Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalif général des Mourides fas yéene soppi karo yi def ci yeneen i karo yu yees yoo xam ne mën nga ci dox waxtu wu nekk te du tàng bunt yi nga xam ne ci la ñuy ci la ñuy ci jumaa ji nga xam ne dafa laajoon yeesal ndax léeg-léeg tàngoor rek yu mel noonu ci nekk euh, kilifa yi ñeewante ci taalibe yi amoon yéene sopp ko kon loolu moo waral ñu tàmbali liggéey bi waaye nag des na ko gën a yaatal ci yeneen yeneen anam euh, Cheikh Bachir nag joxoon joxoon ma ci ndigal Euh, boole maag sëñ Moustapha moom mi nga xam ne moo moo fi moo fi teewal njabootu waa kër waa waa Njuga Keppe famille Njuga Keppe mm-hmm. ko su ma dolli njëggal ak yërmande. Mm-hmm. yàlla dogal moomit it euh, lu mu fi bàyyi woon ay karo yu yàgg yu mu fi bàyyi woon. Mm-hmm. nga xam ne ca pale ba la jëme woon. pale pale ba ñuy wax pale Njuga Keppe. loolu ko taxoon a jóg ca jamono boobu yàlla dogal boobu ba léegi kër yaa nga fa waaye kon suñu borom booba dogal na ne euh, kër yooyu ci jumaa ji la jëm waaw kon. sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdoul Khadr moo fi teewaloon Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom sëriñ Bassirou ci ndoorteel liggéey bi. mu ànd koog waa daayira mu xadamatul ma bi nga xam ni ñooy saytu lépp lu jëm ci jumaay Tuubaa ju mag ji sëriñ bi leeral la yéene gi nga xam ni sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru am na ko ci jumaay Tuubaa ju mag ji kon nag liggéey bi ñu tàmbali tey euh, liggéey la boo xam liggéey bu karo yi xam ngeen euh, ñaari karo du ko seex am na ci karo yu weex balaa karo am ci boo xam garandi li garandi nag karo bu seer la ci gën a seer la bokk sa waaye day tànge boo demoon boo demoon Madina sax am na fa waaye dañ ko mujj dindi te fa ca gën a bari ndax kar bu seer la waaye ñaar li ci ëpp ci biir lañ koy jëfandikoo foo xam ne aw tàngoor du fa agsi bu dee tàng day day téye tàngoor boobu nit ñi duñu fi mën a jaar moo tax penku bi euh, ci jamono suñ siin Musaa lañ ko soppoon defoon ko comme nii ndax bii a bi yokkee moo ko fi njëkk a def bu kar la bu seer boo xam ne ci gën a seer ci àdduna lu waaye dama boo fi masaan jaar ñu sëlmal ajuma léegi da ngay yërëm nit ñi da ngay gis nit ak pësëf musum bi dàllam musum bi dàllam ndox ba ci àgg nga gis ne mënatu mënatu koo dékku ndax ndax tàngooru métti sama classe bi nga xam teel nañ koo xam sax ay kawas lañu yóbbaale waaye xëy na ñëpp tolloowuñu ay ay ay ay jigéen te Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké dégg naa ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mu wax ne wax na ne sole dàll ci penku bi bari na lu nit ñàkk te mu mu baare ko ne ba ba ba ba ba maa ci yooyu jamono ba nu ko jaar ngir nit ñi di fa sori dàll liggéey bi moom jumaa ji moom ndigal Sëriñ Tuubaa la mooy ndigal Sëriñ Tuubaa li ko gënoon a wax ci wax ci bari ndax bu àggee ci ne bu ngeen ko yëftoon malaayika yi def ko kon loolu moom lu sotti ba noppi. liggéey bi nag. wa keur El Hadji babakar kebe ñu gën ko xam ci njuga kebe ñom ñoko sasso fasiyene ko liggey ba mu ag ci sëñ Moustapha kebe neena mom amul kàddu yum sanni sànni moy sa kàddu duguna ci bir neena xana dañuy sante rek cyant ko xamantene ni amna fa mu tàmbalee waye amul fa mu yam ndax bu allah gi njuga kebe daan jëfël sëriñ bi dem ba am ñeen fukki at ginnawam ab liggeyam ñewat duggaat ci bir liggey sëriñ bi ne day war na kat liggey ba serigne bi nangu na ndax manan nañ ko bëgg te duñ ci am ndigal manan nañ ci am ndigal tamit te du jappandi waye ñaar yëpp nak dajé fi bëgg gi amna? na ndigal li amna na kon neena ñi ngi sant serigne bu baax di sant cyant gogé nga jotal ko serigne bi serigne mustapha neena mom ben rek la ci am lo xamne da koy duggal ci sabax gi diko ko ndax neena allah yi ñu kewee bi mu tuké dem baghdad dem siyaara ji barabu Seydina Aliyun karamallahu wajhahu nee na ñam àndalan daf ci am ko gis benn làmp boo xam ne lépp day oor nee na mu yéem làmp ba nee na alaa gi ne ko ci yow day xamoo li ngay wax daanaka rek daan ko suñu waaji ya Tuubaa day am na fi junniy at am làmp bi bàyyil ba suñu waaji am junniy at fa mu tëdd waxuma ab làmp waaye barab bépp lépp lay doon jumaa jëpp or lay doon waaw nee na noonu la ko waxe nee na kon nag lii li nga ko waxee léegi rek loolu lay dëggal nee na jërë ñaanal baax a baax sa taxawaay yi ndax nee na bala sëñ boole ñoom ak léegi lépp ci soññu ak i taxawu boole leen ak sëñ maam Thierno bañ def lépp ba di ko tàmbali tey suñ borom yow tamit kàttanal la dëgëral la ndax sa taxawaay yoon yëpp lu nañ ko taalibe yëpp rafetlu nañ ko. waa kër El Hadji Ndiouga Kébé yi nga xam ni ñoo sasoo bile liggéey fas yéene ko liggéey ba mu àgg. sëriñ bi sant na leen bu baax a baax ci seenub yéene ak seenu jëf waaye santaale seen waajur wi nga xam ni ay jëfam ci jumaay Tuubaa ju mag ji ba léegi mi ngi fi des. ñoom ñi nag seen waajur am taw féexe te sëñ sëñ Abdul ku ko xam ku ne xam ne ku ma noonu segg mbir la ndax dalaa wax naan mbañum yoon wi mooy tàllal solo ku dul yàlla mooy mbañum yoon مد مد يدي لخيره عندي عندي جنون وقاد لي خير الحلال والفنون moo tax bari waa ne ku mos a dikk si dëkk bi fay def dara waaye daw ko nangoo moom nag mooyoon na ko mu liggéey ci jumaa ji liggéey na fi liggéey bu bëree bëri naa ci nettali benn kéemaan ndax Cheikh Mamadou Fadel bi liggéey bi àggee ba jumaa ji àgg ndax moom dara laa Sëriñ Tuubaa ndigal waxtu ne da daa bëgg nga jox ma ndigal soxna Aminata Bousso la ko daa jaarale ay lettre yu ko daa bindee ba suñ bi tàmbalee jumaa ji nag woo leen moom ak si Cheikh Mamadou Moustapha magam ju ak suñ Massamba ak ñam boole loon Cheikh Ibrahima Fatim moo doon ji liggéey ak Cheikh Issa Dieng Cheikh Issa taxaw jumaa jaarim jumaa waaye euh, suñ bi ne ko sama liggéey boobee ku ñëw dem na nga fexe ba ndigal li ma laaj itam euh, na nga fexe yitte suñ baar mos sama dégg muy nett décompte yi ñu def ñu daa def nii sax bu ko bu ko daa joxe moo ko daa toppal ba xam xaalis bi sax di ci fas nga xam eh, liggéey jumaa yi ni mu yor sëñ bi kon bi liggéey bi àggee daa jàkkaarloo sëñ bi na ko eh, fii leen toll ak yow ndax fële suñ dool fële fële suñ dool toll waaye buñ ko mënoon ñu def ko or moo tax ñu bari biñ déggee ñu ne alaaj ñoo def na or ci barabu suñ ña fekkoon waxi Sëñ Fallou ja ñoo xam ne baatim boobu mu agsiwaat kon liggéey bi ngeen tam daal di yéen njabootam yi te yàlla def ren la am ñeent fukki kon loolu tawfeex la te mu jëmee ko ci liggéey Sëñ Tuubaa yéen itam ginnaaw bi ngeen jël ko def ko addi ki fi nekk Sëñ mu ne fi ba léegi ni yàlla dogal mu dem ba Cheikh Mamadou Mountakha di ko commande ngeen war koo jënde mu tombeeg seen xalaat kon loolu tawfeex la ak day mel ne payug suñu tubaab la rek xasee xam naa danaa leen ko jox ngeen tasaare ko dañ ko ko jox léegi mu joxaat ma ko waaye boo xoolee ba ci biir najsil muhsiniina la ko la ko suñu tubaab tànkee. te gis nga yaxdimuhu fuaadu minni wal yadu ilal jinaade wa hudahu al afidu loolu moom dara nekkul sut fa lu mu rek lu mu waajal la kon nag yéen itam liggéey gam liggéey la suñu tubaab rek moo rogalaat ci ba tawféex ji ngeen am def ko ndax ay liggéey la yu bari yoo xam ne sëñ bi war na ko fi defal boppam ci jumaa ji ndax gis ngeen ne parasol yi gis ngeen ni mu mel euh, waaye sëñ bi moom xam ngeen ne université dafa nekkoon liggéey bu rëy bu ñu waxtaanu boole lenn moo tax ndegam certe na nag am na yeneen liggéey yoo xam ne war na ko fi àggale te ñu ngi ci waaye lii moom yàlla def na ñoom ñoom tawféex tàmbalee ko laata sëñ bi def liggéey boobu donte def na ci lu bari nag ndax. xuba yi yëpp moo ko àggale boo ko doon xool ëpp na sax un milliard waaye liggéeyam décoration day day moo mel noonu day seer te doo ko mën a xam kon ñu ngi sant bu baax di leen ñaanal yéen suñu Moussa day yóbbante ñëw njaboot gépp mboolem ñeen ko àndal di ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax ngeen jëf ko mu tàbbal ko ci liggéey ba seen waajur ji liggéey ba Sëriñ Tuubaa ci nekkam tuyaa ba jaay lépp fekk ko fa te yéen itam ngeen bokk ci ak ñun ñu ngi fekk ñëpp ak bépp taalibe ak bépp jurit salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa fu ñu toll ñuy nemmiku loo xam ne lu ci war a yokk la ni ñu ko xam jumaa moom ndegam jënd jumaa mu dul ak garawa suñu jumaa seen ci waa ji nga xam ne murit fu ñu toll seen yéen fay duñ ko or duñu am jam te jamono mën naa dox ba lu ci bari doon ko ndax sëñ moom mbiram moo dem noonu di ñaan naal wi nga xam ne moom la naal ma àggale ko ni ni mu gënee. di ci am yaakaar bu baax ndax ñii nga xam ne yàlla yàlla dogal ñu tab seen loxo tey kenn du guleet ndax ay wanteer képp raj ñu ko ma koy def ci jumaa ji moo defee décoration bi ci biir ak yu bëree bëri yoo xam ne gannaaw bu ci buñ ko jullee daal moo ci njëkk a dugalaat loxoom ba lu bare moo ko ci taaral kon ñu ñaan ñoo tuuti moom dool yërmandeem dool leeram wàllu ko sëñ ba Cheikh Xadim ñaan joxoon tamit kii fi bàyyi tamit suñu borom teg ci loxo. ba lépp lu mu yéenoon a def ñu ko ko ni mu ko góobee ba def seen bi nag ñoo ngi ko fas yéene door ci samedi bi dëppoog le 11 mai 2024 lépp yemb na mboolem karo yi ak li nga xam ne moom moo ci aajowu ngir defaree ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee lépp nag ñu ànd kook sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Moustapha Bassir mi nga xam ne sëriñ bi moom la dénk lépp lu jëm ci saytu gi ak taxawu liggéey bi ba keroog muy àgg.